après mbapat da nga dugg si dugg na si arène bi bëri waaw dugg naa ci mbapat euh, aren hmm. benn yoon euh, Père Aldemba Sey boobu moo ñu yoroon. Hmm. yàlla dogal kera bi nga xamee ne force la ñu moom. kilifa yi doon xool ne daal war nañu mu wutal combat. Hmm. diggante bi yàlla dogal combat bi ñu ma doon wutloo. ndax euh, bëri na maa ngi ma kii beneen mbëri paas bi ñu yoon wax. torche euh, marché la. waa Parcelles Assainies mbokk bi Birane Ndiaye fa laa ko njëkk a daane. Mm. ndax dama ko ko njëkk a daan ñu ko. Mm. may bëre ak may bëriwaat ak moom xëy na waaye samp benn gën gën gu màggati noonu. ci gën ci ci ci bi di ñu di maanaam di mm. yooyu amul problème. mais ni ma koy daan dama ko daan ci koo gën bi. boobu itam boobu fekk na moom itam boobu xam naa ne mën na bëri mais boo maa ko doole. diggante Pikine Fass kon ak Pikine ak Fass dafa yàgg de. loolu loolu yàgg na dafa yàgg. <laughs> loolu yàgg na ñun ah. daje nañu fu ne daje nañu Guédiawaye nañu Yaraax. Mm-hmm. daje nañu Dakar daje nañu partout. loolu dafa metti woon àndul la woon ñun la woon ak waa Fass. parce que boobu itam. dafa mm-hmm. géey mu ngi doon ak ñoom ak euh, Bade Bay ñoom un Mansour Diop ñoom Lang Sané ñoom Serigne Ndiaye ñoom ñii di bëri mbapat yaa ngi def Ibou Ndafa ñoom mm. euh, bale euh, ki mel ni Baba Diallo rek ci Mbàkke ba mm. daan Moustapha Gueye Yarax mm. Bale Bay ñii mbapat si Moustapha daan ko géejawaay mbapat yaa ngi dégg ñu dajawaat yaraax Moustapha Gueye ñoom ñëpp taxaw ko ak ñoom Pape Gueye ñoom Mbaye Gueye kii Mansour kii sabay samp ndënd pour bëreeg euh, Pape Gueye Balla Beye mas euh, Moussa Ba day tëgg mu ne ko ba ma tëgg duma sama rob sama nga soxla mu sampaat mu di ko fenn mu dajeeg moom dóor ko mu daal keroog nag boole nag ñaari ñaari boo yooyu ba Mbaye Gueye ak Papa Pape Diop bëre mm-hmm. entre le Pape Gueye la ak Mansour Diop dañoo bëri ñaari épisode mm-hmm. ñu mat si nii mm-hmm. ñu daje ba xëxante dëkkante bëre ñoom itam bëre ñaari école mu niir kenn daanu ñoom day dafa niir ak ma ak euh, Pape Diop dafa niir ak Mbaye Gueye deux fois Mansour Diop dafa niil ak Pape Gueye ak Pape Gueye deux fois mhm. mais Pape Gueye dafa daan bàll Gueye waaw léegi ñu ñëw si ces actualités de la lutte fekk nga nekk majeur bon man euh, yàlla dogal na maa ngi nekk euh, ménager mhm. deux mille six deux mille sept deux mille huit ma Ama Baldé dugg ci làmb bi mu duggee ci làmb doon bëri ay mbapat mm-hmm. ma seetaan ko partout nag mm-hmm. yóbbu ko ay làmb bu géej waay am na làmb amoon fii ci dóor géej na bool bi mm-hmm. euh, làmb boobu xam naa ne mbapat ma ci li ko